juddu dans les années quatre vingt tey nga am quarante wala lu ko jege yow mi mel ni man juddu ci année quatre vingt dix yi tey nga am fanweeri at wala amagoo ko yow mi may déglu te ñaar fukki at nga am wala amagoo ko moo bëgg nga xam ne am na dëkk yoo xam ne gënoo leen leen te choisir ñu fu ñu juddoo dañuy judd rek nekk ci ay guerre civile palestiniens li ñuy dund xamoo leen ko yéen Soudan du Sud ak Soudan du Nord ña fa nekk condamné à la guerre civile li ñuy dund xamoo leen ko. waa Congo li ñuy dund yéen xamoo leen ko ñun peuple sénégalais ñu am chance dund ci dëkk boo xam ne c'est relativement stable jàmm am dal am ñu dund ci dëkk boo xam ne am nañu ay valeur am cohésion nationale kenn du tojante bopp ndax diine yàlla nattu ñu benn moment de l'histoire comme ni ñu yàggee yeneen nattu ah. Senghor toogoon na fi di ñu noot ci benn période donte yeggul woon ci benn niveau bi Abdou juuf amoon na ay confiscation yenn liberté yi Abdoulaye Wade moo tax corruption généralisée au Sénégal je le dis et je le redis ñu toll ci benn moment boo xam ne yàlla nattoo nañu am nañ président boo xam ne gëmul démocratie gëmul les principes républicains pour moom daf war a toog bër bu ko neex mu jox nguur bi ko neex mais loolu nattu la ci benn moment de l'histoire léegi dañuy toog bàyyi ne kooku gañe nañu ñu soumettre mu def lu ko neex wala dañu war a taxaw jàmmarloog moom pour moom mu nekk un épiphénomène de l'histoire ñu koy nettali ci lu gën a ñaaw ci histoire ñaar yooyu ñun ñoo ciy choisir Macky Sall gañewut te du gañe xeex bii li may bañ mooy ñenn ñi ñu gàtt xel ñi te démb laa ko doon wax ñu dugal ci ñoom une defet psychologique ci seen bopp waxoon naa ko démb te dama koy répété tey Ce combat nécessite du temps et de l'espace. Ce combat nécessite du temps et de l'espace. ku àndi raawul teel ñu koo wax nga tëj sa gémmiñ nga baal ñu mais bu mais bu ñu découragé loo amuloo droit di découragé loo ce vaillant peuple ñun ñi nekk si biti tey am liberté ñi nga xam ne yàlla def na ñu am liberté parce que ñu ngi Sénégal ba léegi chance la ñi nga xam ne dañoo organiser seen liberté comme man exilé wu léegi junni nit ñu nekk ci kaso yi dañuy naan ñun bàyyi nañ Macky Sall gagné na après ñoom lan mooy seen sort ça c'est de la haute trahison ku ko def si ñun Macky moo la tane Macky Sall moo la gën loolu mooy dëgg Ousmane Sonko mu jël léppam tey la ko pour Sénégal après ñun Macky Sall génn benn fan ñaari fan ñi ñu jàppee woon ne foofu la niveau bi di toll am na ñu jàpp ne yeggu fa donc c'est c'est fini Macky gañe na. loolu moo tax ma dama rus ci su ma gisee yenn post Facebook yi di wax ne non Macky Sall na peuple bi lii la mérité arrêtons de tirer sur le peuple sénégalais kan mooy peuple bi peuple bi yow la peuple bi man la peuple bi sama frère la peuple bi sama sœur la peuple bi sama papa la peuple bi sama yaay la yow miy wax loolu est-ce que sa papa ak sa yaay convaincre nga leen ba ñu génn wàcc est-ce que say frère ak say sœur génn nañu est-ce que sa xarit yi ci bopp koñ bi di ànd ñoom fubali est-ce que ñëpp génn jouer ce rôle de citoyen te bàyyi ñeneen ñi kenn amul droit tirer sur le peuple parce que na nga bëggoon mu demee nii demeenu ko nit dangay ngay dangay da ngay mën a muñ yàlla la neex ñun ñun exister d'abord parce que tàmbuguñu yàlla la neex ñu exister te nekk ay sénégalais yàlla la neex ñu judd ci période bi tombeek nguuru mag Sall kon nag toog bàyyi Macky Sall mu wéel li mu def mais amuñu choix attention ndax boo bàyyee taxul lii dañ de taxul lii yam fii Macky Sall day continuer di la teg lu gën a métti kon amuñu beneen choix bu dul xeex mu neex mu naqari ñun peuple sénégalais pour une fois de l'histoire <laughs> suñuy maam nag def nañ ko contre colonisation ci gox yu fasantiku après colonisation am na ñu ko def ci ay sénégalais yu mu jural ay Omar ne Diop ay Mamadou Dia ñi mu jural leen kaso ñi mu jural leen ñàkk seen bakkan mais pour une fois de l'histoire si Macky Sall nañuy jàngee ñun askanu Sénégal ne am na fooy toll sa liberté danga koy xeex pour acquérir ko définitivement loolu la yàlla di jàngale ci Macky Sall ak nguuram bii te mu neex dañuy xeex mu yi dañuy xeex kon nag xeex boobu mënul yomb. ci loolu nag laay ñëwee ci ñu def un diagnostic clair da xew démb ak tey Macky Sall dafa xëy à quelques heures du début officiel de la campagne électorale muy douze heures de temps parce que midi la waroon wax minuit la campagne waroon tàmbali donc mu décalé ko ba quatorze heures dix heures de temps moo desoon pour campagne électorale tàmbali mu ne dama jël décision ne élection yi dootul amati première réaction c'était belle c'était bon candidat yëpp dem ci télé yi di woote ak ci rajo yi ne lii du yoon dañu koy dénoncer ñu jékki-jékki candidat yëpp daal di ne suba dinañ def campagne conjointe ànd def ko fan Saint-Lazare ci VDN bi démb candidat yi ñi si ëpp génn nañ sénégalais yi am na ci ñu si génn ñu ànd ak ñoom fépp ci àdduna bi wane nañ ne Sénégal ay tension am na fa ay heure am na fa ay résistance am na fa mobilisation am na fa contre l'annulation de l'élection présidentielle loolu moo amoon solo mooy wane ne sénégalais yi d'accorduñ ci loolu il faut ñu capitaliser ko dañ koy bàyyi sànni ko quoi parce que tey mooy loolu deuxième bi mooy pour Macky sàll lewal loolu mu def assemblée nationale la ko jaarale tey complot ci ak waa PDS nga xam ne classe politique sénégalaise ñoo ci yées man loolu jeune ne mange pas mes mots léegi loolu bu amee tey ñaari vole la woon am na loo xam ne député yi la waroon am na loo xam ne candidat yi ñoo ko war a jiitu askan yu fekk leen ci député yi nekk ci assemblée nationale te d'accorduñ ci wane nañ seen warugar mooy ne loi bii de ñun bu ñu toog fii di yëkkati loxo naan voter pour voter contre pour mu jàll. dañuy taxaw bloqué assemblée nationale tey adduna bi yëpp gis nañ ne ay gendarme ñoo tax loi bi jàll amoon na 2022 mais boobu dañu doon installé bureau assemblée amul écho ci adduna bi mais Macky Sall tey sol na manteau wu putschiste sol na manteau wu koo xam ne coup d'état la def damay wax bu kenn wax coup d'état constitutionnel ou anticonstitutionnel c'est un coup d'état tout court c'est aussi simple que ça kon loolu dañ ko capitaliser adduna bi tey ñi def communiqué yépp ci ministère des affaires étrangères yu Allemagne yu France ci Sénat américain ci organisme yi nekk fii CEDEAO Union africaine ak keneen ak keneen mais ñooñu ñëpp seeni i seen i seen i communiqué ñi dañu ne Macky Sall li mu def waru koon def duñ capitaliser loolu ñeneen ñi daal di ne na ñëpp ànd ak dal ànd ak jàmm parce que ñoom ay naafeq nañ nañuy woo Macky Sall pour mu jàpp élection lu mu gën a gaawee pour jàmm am te nag na maintenir li mu wax ne du nekk candidat kon ñooñu xam nañu ñun ñoo nekk si dëgg ba buñ faree Macky Sall ña nga wuñ ko wanee loolu duñ ko capitaliser wala dañuy jàpp ñu ñu am defet beneen bi ci tegu mooy lu gën a am solo mooy toutes les force vives de la nation ne d'accord ci muy société civile bi muy association imam yi ligue des imams et prédicateurs muy RIS al muy syndicat yëpp def ay communauté ne lii duñ ci d'accord ay syndicat wu travailleurs Sonatel sax bokk ci mais vous pensez que loolu dañ ko war a ñooñu duñ peuple bi quoi wala ñooñu mënuñu woon toog bañ a def communiqué communiqué yooyu bu leen ko xeeb gars yi communiqué yooyu bu ñu ko xeeb yow ñuy toog naan sénégalais yi génnuñu dama lay laaj est-ce que génn nga yow mu génn te gis na am na sénégalais yu bëri yu génnul ñu leen gis ñi dox seen soxla mel ni mbir mi intéressé wu leen maa lay xamal ne tey boo wéyalee sa taxawaay fii ak ay jours sénégalais yooyu dinañ la fekk si parce que am na ñoo xam ne ci askan bi il faut que am ba mu yegg benn niveau bi pour ñu doog a ñëw parce que noonu la leen yàlla bindee ci mimétisme dañuy dox maanaam dañuy toppandoo am na ñoo xam ne amuñu fitu déclenché mbir il faut mu am ñu ko tàmbali pour ñu am fitu ñëw loolu mooy liy dëgg. c'est extrêmement important pour ñu xam loolu kon ci diagnostic bi damay ñëw ni tey li xew dafa am loo xam ne wax naa ko démb mooy leader yi dafa am lu ñu warloo c'est surtout les candidats à la présidentielle dama bëgg man ma adressé message bii nii ngeen dégg ko bu baax ñun askanu Sénégal ñun ndaw Sénégal tofuñu jinne jàppuñu xàmmee nañu ràññee nañu Macky Sall tey mun na confisquer la volonté populaire de mais yéen ñii di nekk candidat kenn du fi falu lu dul ñu la neex ñu fal la ñun askanu senegal li ma bëgg ngeen xam mooy seen taxawaay tey c'est pas la bonne posture mënoo leen taxaw ne élection nañu randal élection nañu puus ne du am te sénégalais yi seen choix dañ ko waroon def obligatoirement parmi vous les candidats ngeen ne campagne dañ koy maintenir ba pare du ngeen génn mais guider peuple bi tey li xew ñu wàcc sur le terrain y a des gens déterminés mais les gens ont été déboussolés les gens ont été désorganisés ku ci dem ci dialogue Macky bi bii mu lay mirwaataloo di nga perdre sa crédibilité populaire te billaay maa la ko wax Macky Sall dina la dóoraat téewaat pouvoir bi wala mu def lu ko neex su boobaa nga perte dix perte less am na ñu mu dal ci opposition bi ñooñu ñoo doon délégitimer xeex ci mois de juillet naan ñun waa Pastef dañoo dof ana ñun tey te ay pourtant ay candidat woon nañ Macky Sall bi muy pousse élection yi da leen woo tey gis ngeen leen seen député ñëw taxaw fii assemblée tey ñoom ak ñun ñoo àndaat di xeex te su boobaa ngeen perte crédibilité bu leen desaloon kas néew dafa am loo xam ne da ngeen ko warloog seen peuple munoo leen ne da ngeen bëgg a jiite dix huit millions de sénégalais. dix-huit millions sénégalais yooyu ngeen bëgg a jiite bu ñu nekkee ci moment wu épreuve du leen jaral benn sacrifice réew boo jarul sacrifice noo koy jiite war a porter seen destin bu ëllëgee boo war a renégocier benn contrat tubaab bi di la menacer ci coup d'état ci suuf fii wala déstabilisation militaire fii wala sabotage économique yow est-ce que di nga def sacrifice boobu noonu pour ce peuple réew da jaral li mu lay jaral kas ñëw mooy dañoo xañ sénégalais yi seen droit wu vote droit gën a sacré nga taxaw ne loolu doo ci ànd te loolu doo génn benn fan ànd ak sa ñett garde du corps le lendemain kenn gisaatu la les sénégalais ne vous ont pas vu aujourd'hui c'est pourquoi beaucoup de sénégalais toog di hésiter bu ngeen jëlu seen responsabilité sénégalais yu bëri mun nañ toog bañ a def lu ñu war a def donte du woon loolu mooy la bonne posture wax naa ko démb dama koy répété waat tey aux candidats vous avez l'obligation de poursuivre la campagne partout ngeen xëy takk seeni oto ànd ak sénégalais yi wërandoor dans plusieurs localités mbooloo yooyu noonu Macky Sall da ko mun contenir mënu ko contenir kon bu bu ngeen toogee def dara defoo leen dara mooy yéen a tax Macky Sall mën a jàllale lii c'est loolu kase la waaw loolu kase la li ci tegu mooy ku yor coalition surtout coalition bu am doole bu mel ni suñu coalition ñun Pastef muy Diomaye président ak ñu ci àndal ñëpp nag ci ay leader wala ñu mel ni PUR mais da nga am ay base maanaam da nga am ay antenne am ay satelit da am ay ay ay représentants ci gox yu nekk muy ay les comités électoraux les comités locaux dans les départements et dans les communes waxal ak say base pour ñu wàcc simultanément partout pour def campagne def ay mbooloo yu bëri dox ci mbedd yi ne non au report élection par force loolu bu ñu ko defee dans plusieurs localités Macky Sall mën na ko contenir te dëkk bi mënut a nekk dans l'ingouvernabilité pendant cinq jours c'est pas possible Macky Sall mooy dégager ngir yàlla yonent bi lii yomb na c'est pas quelqu'un qui est aérien qui vous dit ça parce qu'il est en dehors du pays non parce l est hors du pays c'est quelqu'un qui l'a vécu qui depuis vingt ans bokk na ci sénégalais yi wàcc di xeex ci mbedd bi ci lépp luy xew te di suivre politique nag lii métti wut ci loolu laay waxee message à tous les coordinateurs départementaux de PASTEF mais tàmbali ko ci coordinateurs départementaux ak communaux yu GPS yéen yéen a laaj ay responsabilité ñu dénk leen ko ngeen ne da ngeen a jiite responsabilité yooyu ngeen laaj bu ëllëgee mun na leen tax ngeen am ay responsabilité ak ay fonction politique ndax képp kuy def politique da nga bëgg a bokk si ñuy tabax réew mi du du pour servir sa bopp mais pour servir réew mi la dama leen di laaj est-ce que yéen ci moment wu confort ak moment wu calme rek ngeen di laaj ay responsabilité pour guider askan wi wala moment wu difficulté bu amee ak ay épreuve da ngeen war a jiitawaat askan wi jàpp naa ne réponse bi mooy li ngeen yàgg a taxawee mooy moment épreuve yéen yéen a war a jiitawaat askan wi parce que ki may déglu nii tey dëkk Géejawaay wala mu dëkk Pikine wala mu dëkk parcelle wala mu dëkk Linguère wala mu dëkk Kaolack wala mu dëkk Ziguinchor wala mu dëkk Matam mën na bëgg xeex mais bu génnee bu gisul kenn lu muy def kon yéen yéen a war a déclencher les choses kon yéen ñi nekk ci comité électoraux yi jiite ay responsabilité bu ngeen xëyee maintenir campagne génn woo militants yi def communiqué ci groupe yi ñoom ñëpp ñu ànd ngeen jël ay artère dox population yi ñu buggoon a génn dinañ leen yëg dinañ yëg ne génn ngeen ñu génn parce que ñëpp a koy yëg loolu nonobstant restriction internet yi mënu ko téye loolu mooy le minimum que vous devez à ce parce que yéen yéen wax ay leader ngeen dans vos localités loolu mooy le minimum que vous puissiez faire sinon rek kenn ci ñun matu leader mat leader mooy bu nekkee ci difficulté nga mun a guider peuple bi xalaat ne nii nañ war a def nga joxe la bonne direction ñi ñi topp la si te nga jiite ko nag kon tous les responsables locaux de Pastef et surtout de la JPS parce que man JPS laa jiite mais sañ naa soññ nag samay mbokk Pastef vous êtes interpellés soyez les déclencheurs dans vos localités tou tous les militants ñu ànd ngeen wàcc continuer la campagne parce que ce décret est il est illégal cette loi de l'Assemblée nationale est inconstitutionnelle ñëpp xam nañ ko constitution may ko assemblée sinon kon Macky Sall bu bëggee wàññi mandat euh, sept ans cinq ans yi mu wax ne mënu ko sax def ci référendum parce que loolu la wax la loolu la ko conseil constitutionnel wax konoon mënoon na ko jaarale assemblée mais mënu ko sax jaarale référendum nga xam ne peuple bi lay laaj mënul wàññi par l' assemblée mais mun na yokk par l' loolu xel xel nangu na ko kon loolu à une loi injuste ñu ne tenu d'obéir Guy Marius Sagna daf koy rappelé tout le kon les leaders ay responsable responsabilité ci moment bi nañ koy xam responsabilité du bu méttee nga dugg sa sa sangu sa lal responsabilité du nga toog naan peuple bi nañu génn peuple bi génnuñu man du ma def dara yow yaa ne yow da def politique pour jiite askan wi pour bokk si ñuy jiite askan wi kon yow da nga war a initier les choses yow da nga war a déclencher les choses yow da nga war a diriger les choses yow da nga war a orienter les choses kon gars defet xaajagul bay am te warul am parce que personne ne peut vaincre son propre peuple message bi yéen laa ko adressé bu leen mës a bàyyi bu leen mës a découragé Macky Sall mu ouvrir benn boîte de pendoor boo xam ne tëjal na boppam porte yëpp Macky Sall dara deseetu ko sénégalais yëpp nu ci lii mais loolu mooy suñu ndam sénégalais yëpp ànduñ ci comment faire pour les mobiliser ñun ñuy def politique buñ ko mënul nañu bàyyi. lu ñu réussir mooy la bataille de l'opinion sénégalais yëpp kenn àndul si lii ñun xam nañ loolu parce que Macky Sall jël na décision boo xam amul sénégalais bu ci mën a ànd nga dem ba biir propre campam ay Zahra Iyane Thiam ay Abdou Latif Coulibaly ay Youssou Ndour bi nga xam ne génnoon na coalition am il y a de cela quelques mois ñoom ñëpp ne d'accorduñ ci personne n'est à l'aise avec lui nga dem ba am chance boobu noonu léegi yow nga ne yow da ngaa perte xeex bi au nom de quoi on n'a rien perdu Aucune ay n'est même perdue wax ma la ak laa guerre peuple sénégalais dañu war a am résilience ñun peuple sénégalais dañu war am endurance bañ na ko bu ci football Sénégal xool leen match Sénégal pour ñu dugal ko mu égaliser remonter loolu lu jafe la ci football Sénégal machine yi mu gagné moo njëkk dugal bu ñuy dugal Sénégal Sénégal du jëndaxe Sénégal bu dugalee équipe sax bu équipe bi égaliser pour mu dugalaat beneen bii problème la parce que ñun suñu mental mooy loolu ñun dañu maanaam ñun dañ ñun daal dañoo gàtt xel. dama yàlla baal loolu dafa waral dëñ Sénégal c'est un diagnostic sans complaisance que nous devons nous faire parce que foofu la xeex bi toll di wax waa Pastef nag ne sama xalaat bu gàtt laay wax de Macky Sall ak ñi mu àndal report bii pour ñun la report bii mu def pour am temps jublu ci ñun mettre ñu définitivement ci si ci situation boo xam ne dootuñ mënati exister politiquement kon mbir mi intéressé na ñëpp mais ñun la gën a intéressé ñun ñoo nekk ci situation boo xam ne nee naa bu dee sénégalais ay patients nañ dañoo feebar ñun ñoo nekk ci situation boo xam ay urgence nañu nekk parce que ñun ñoo am mille militants yu nekk kaso ñun la président Ousmane Sonko suñu président nekk kaso ñun lañ gisudul suñu parti politique loolu laa bëggoon a wax pour ngeen xam ne taxawaay bi tàmbali na te day wëy te du ñu arrêté tant que Macky Sall jugewu fi kon combat bi laaj na temps mooy à chaque fois dañ koy wëyal laaj na espace mooy partout sur l'étendue du territoire dañ koy wëyal et avec toutes les couches sociales yow mi may déglu naan peuple bi te nga dëkk sa koñ mu am trente personnes yi la fa xam qu'est-ce qui t'empêche nga regroupé wu convaincre sa ñetti moroom pour ngeen dugg wër kër yi wax ak jigéen ñi wax ak ña fa nekk ñëpp ne ñun dañoo bëgg jeudi suñu koñ ñu def benn procession wala àllarba dajaloo dox ba ci taliba ngeen dugg ngeen convaincre seen waa koñ suba gannaaw suba pour jeudi ngeen def ko rien n'est encore joué dégg naa ci yenn leaders yi ñu mel ni Mimi Touré maa ngi rafet lu seen taxawaay nee nañu dinañ dajaloo pour def benn plateforme pour wéyal xeex bi def ay mot d'ordre on est en période de campagne électorale observateurs internationaux ñoo yëpp ñu ngi fi Macky Sall mi daan tëjee ku mu jàpp dalay bayaat ci ngoon xam ngeen loolu depuis démb ba léegi loolu moo am Macky sàll mi daan reyee dafa rey kenn Macky Sall bi waa partem doon défendre bec et ongle léegi ñu bëri dañoo génn laxasu ci moom parce que li mu def dafa ëpp kon bu ñu poussé tuuti am ndam ci kaw Macky Sall il isole isolé il est lii mu dugg munu ci génn te du ci génn mais chaque fois mu nekkee ci moment boo xam ne ñun ñoo am ndam féete kaw mu def mu am une victoire psychologique bi mu wane parce que sénégalais yi génn bu ñu xëyee ci presse bi yenn presse yi génn naan li jàll na après tijji buntu dialogue sénégalais yi foog ne xeex moo fi jëlee Macky Sall xeex kese moo fi mën a jëlee Macky Sall askan kenn mënu ko noot pendant vingt ans dëkk yi ñu noot fii Afrique ay quarant ans dictateur am am fa du ma tudd ay turu dëkk mais loolu am dañuy def benn affaire askan wi duñ ci d'accord ñenn ñi génn ñu tëj ñii ñu ñu bàyyi ci biti ne askan wi génnuñu ku nekk di accuser sa propre morom ci population bi ku nekk daal di jàpp ne sa moroom diw xeexul diw xeexul su ko defee kenn ku ne jàpp ne sa morom jarul ngay xeex après ñëpp toog moom mu déroulé dictateur yi noonu la ñuy def Macky Sall foofu la ñu bëgg yóbbu bu ñu ko nangu tey bu ñu ko nangu ëllëg nañu taxaw nañu takku pas de découragement. kuy découragé bokkoo kuy xaddi bokkoo kuy bàyyi bokkoo man na sa resque pour la personne du président Ousmane Sonko du ma mus a bàyyi te du ma mus a xaddi donc loolu laa laa leen bëggoon a wax pour ngeen xam ko coupure internet bii wàññiwul dara si suñu xeex ñu ngi leen wan ci réseaux sociaux yan moyen ngeen utiliser pour détour pour maanaam pour pour pour pour en tout cas pour jéggi ko utiliser moyens yooyu ngeen jéggi ko ANC bi ñuy xeex contre apartheid internet amul woon donc internet bu prétexte Macky Sall kon kay mooy ñun am Macky Sall moom moom moo yor bi kon bu ko coupé rek ñun perte nañ kon mooy Macky Sall moo ñu mën Macky Sall peuple bi peuple bi man la peuple bi yow la yow muy def politique yow mi influent ci réseau yi yow mu nekk sa koñ ñi ñi di la déglu yow yaa war a wax ak peuple bi ngeen organiser wu génn spontanément te ngeen rester à l'écoute loolu mooy mot d'ordre bi loolu mooy taxawaay bi amul bàyyi amul découragé yàlla la neex ñuy dund lii te bu waree dëñ day dëñ waxoon naa ko dinaa ko waxaat au mois de juillet bi ñu jàppee Ousmane Sonko ragal taxul kenn gudd fan ñeme taxul kenn gàtt fan ku nekk sa dund fu ko yàlla yemale foofu la koy yemale ku ne période bi mu nekk sa dund fi la wala war a fekk bu dee kaso la foofu nga war a fekk loo deful woon tamit kaso nga jëm suñuy destin yi dafa irréversible mais li am solo mooy ñu situé yow du bon côté de l'histoire loolu rek laay ñaan ku ne ci ñun ñu bañ a xàjj bañ a découragé bañ a gaaw a bàyyi yii sénégalais yi jaruñu ko sénégalais yi jaruñu ko au oh nom de quoi sénégalais yi jaruñu ko léegi yow da ngay nangu injustice konoon kon yow mi nga xam ne dañoo dem ba Macky Sall def lu ko neex nga ne d'accord ci mu foncé nga bàyyi Macky sax moo la tane yow ki nga xam ne musul xeex pour Sénégal moo la tane parce que moom am na principe te constant na ci ñàkk xeexam mais yow miy xeex ci biir jékki-jékki dellu ginnaaw mais fortifier nga dictateur bi wan nga ko ne am na victoire psychologique bu kenn bàyyi bu kenn découragé ensemble debout on marche contre la dictature contre la confiscation de nos libertés contre le coup d'État et pour la restauration de la démocratie de l'État de droit et de la République maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf